ODCAV bu Kaolack day dugal loxoom bu baax ci li nga xamante ne nii moom moo di xeexu mbas mile di coronavirus ci seen lëkkaloo ak waa district sanitaire bu Kaolack daan nañu amal ab bëccëg boo xamante ne nii sax dañ ci doon ñàkk askan wi rawatina ñi nga xamante ne nii ñoo di sportif yu nekk fii ci dëkku Mbose Kumba jigéen. feebar la boo xam ne képp ku mu jàpp dina la faat te ni muy faatee jamono jii bëri na te gis nañ que ne amul lu ko aar li ko aar lan la mooy ñu jël vaccin yi. comme dañu nag dañoo am organisation bu tudd ODCAV nga xam ne ñi ci ëpp doole mooy ndaw yi te ndaw yi mooy yaakaaru ëllëg ñu ne ñun nañ jóg bañ a toog croiser les bras ci la benn comité bu nekk ci biir ODCAV bu may remercier de passage parce que maa ngi fi doog a teg sama tànk ñoom ñoo ko xalaat ñoom ñoo ko dox ñoom ñoo ko wax derrière le président de la commission Malick Ndiaye ak ñëw magale leen par le président de l'ORCAV ànd ceeg ñoom accompagner leen donc accompagnement boobu ñu ñu accompagner tey moo ñu permettre tey ñu mën a taxaw fii pour que nit ñi nañ vacciné wu. ci ay biir biiri doom moom Essa Diouf di ñu xamal sax ne li ñàkku gi rek mooy mën a tax ba ñu daal di fagaagal li nga xamante ne moo di mbas mile waaye tamit mën a delluwaat ci suñuy activité vacciné wu bi moom lañ jàpp ne moom kese moo mën a tax ba nga xam ne di nga mën a mucc ci feebar bi. même techniciens yi dañ koy wax am na ñoo xam ne ñu ngi koy wax nee nañ soo toogee ba feebar bi dal nga bugg a vacciné wu dootul amati njëriñ donc soo toogee aussi bañ a vacciné wu li muy faat yëpp ñu ci bari kenn vacciné wul à quatre-vingt pour cent wala bala ñoo vacciné day xaar ba mu dal leen looloo tax nag ñun suñu wàllu bopp ñu ne duñ xaar dañuy oo askan wi ñi seen loxo jotee ñi nga xam ne mën nañ dem ci centre ñi mënut dem ci centre ñu organiser camp bi pour ñëpp mën a vacciner wu pour ñu mun a aar population Kaolack ci li nga xam ne moom mooy feebar bi. askan wi nga xamante nii ñëw nañu ñàkk si di rafetlu bu baax a baax initiative bi nga xamante ne nii ODCAV bu Kaolack def nañu ko waaye tamit jaaree fa di ñaax seen yeneen i natango yi ngir ñu ñëw ñàkk si. damaa ñëw jël dose bi pour que euh, li ñuy gis tey tey dafa jéggi dayo Covid bi mu ngi si Kaolack ku ko gëm ku ko gëmul mu ngi si Kaolack di rey di nga xam di rey ñoo xam ne ñun xam nañ leen ñooy dund ak ñoom chaque jour di yeew ak ñoom kon bu loolu amee ñun war nañ mën a respecter euh, euh, mesure barrière yi njëkk jël ñëw jël dose bi parce que loolu aussi mooy mooy bokk ci loolu lay aar te ñu wax ne nañ wóolu suñuy médecin yi ñoom wax nañ ne carrément nañ jël dose yi kon ñun luñ mën a def lu dul dem vacciner bi xanaa di leen oo rek ñu ñëw ñàkku te xam ne ñàkku bi amul solo suñ bopp rek la aar bés bi ni mel ñu bàyyile woon ko ki nga xamante ne ni sax moom moo di Ahmed Youssouf Benjeloun nekk njiital mouvement Kaolack Nouvelle Vision moom moom tamit di àddune waa ODCAV ñi ngi bay seen waar ci li nga xamante ne moo di xeex bile di coronavirus tax ba mu leen di ñaaxaat sax ngir ñu amal yeneen yëngu-yëngu jëm ci li nga xamante ne moo di wàllum développement ci diwaanu Kaolack.

tànn ma sama jëmm ji xeebu bi nii jëf def ma parrain bés bi ak lu kawal di regorger ci kilifa ci ay doom yoo xam ne ne ay leader ñoom ñu sepp ñoo ñëpp tànn ma ci bés bi donc maa ngi leen ci sant di leen gërëm di leen wax ne lii dugguleet man ak yéen yàgg nañ te hmm. incha allah on va continuer à cheminer pour prendre en charge les préoccupations de Kaolack Ndangar